gars yi waa encore encore une fois dafati nañu mbir de fexe neen ba lijjanti audio Mame Mbaye Niang ci événement marché yi affaire Ousmane Sonko Adji Sarr taa yi mu tàngee bi ñoo taal kër yi Mame Mbaye Niang nañ ko mu la jëw Macky Sall lii nag dala wone ne Mame Mbaye Niang gëmul dara intérêt boppam rek dama leen bàyyi na ngeen déglu audio bi <laughs> après nag ngeen xool ni ngeen ka analyser ndax moom gëm na dara wala gëmul dara lii nag jotoo la dara ak dossier bi c'est juste maanaam dañoo wane la vraie identité de Mame Mbaye Niang leen audio bi. ñoom ñoom Macky la ñuy mu <laughs> mu dem mu koy wax. man nee naa la Macky Sall ay ko. billaahi wallaahi taalaa li tànk bi may wax ak yow. Mhm. laa ne ko ay nitam déglootuñ ko. xam nga xam nga booy yi am na ci ñenn ñoo xam ne nee nañ këram kër Macky Sall ay gendarme ay gendarme ma leen wër ce qui est vrai. Mm-hmm. kenn du taal këram. mais ñoom nee nañ. Mm-hmm. gendarme yi ñëw wër seen kër duñ toog seen njaboot ci ci kat. voilà le vrai visage de Mame Mbaye Niang gëmul dara intérêt la gëm gëmul ma Sall la tous gëmu ko lii nag ab pàccale rek si lii la ñëw fex le 16 lu ne xañ yàlla dina leen weer un à un benn benn benn par benn